wax ma ne sa ko raxas ci boo gisee ñu naan saxarun tamxiyati weeru setal la moo tax tuub moo ci war a jiitu sëñ bu Xaadir naa naa dégg naa ci man de tuub istixfaar damaa ñor lool boo gisee du ma genn njël goo xam ne du yor sama kurus def istixfaar ndax ni ma salaatu ala nabi ñoree rek bala ma caa dem ci tuub lay jaar istixfaar lay jaar ndax bëgg naa bu ëllëgee ma bokk ca wabil ashaari hum yastaxfiroon bëgg naa bokk it ci wal mustaxfiriina bil ashaari la ci yàlla wax <laughs> loolu ci moom laa ko nangoo kon nag yàlla na yàlla dimbale istixfaar ñu gaa ci sëriñ bi nag ma nett nettaliwaat leen ko sëriñ bi daa wax naan ñu baree bëri de dañuy bëgg seenu fas jóg dem ñuy dàq fas wi te tinkiwuñ ko waaw hmm. nga dàq fas wi dàq dàq mënta dem fekk yaa ko tinki tinki mooy tuub wala <laughs> ngeen ne dàqati fas wi dee leen ko ko tinki <laughs> <laughs> loolu loolu ma jox leen ko bind suñu bee ko